muy ñun seqal lislaam ci seen diggante ak sëriñ bi mi nga xam ni xool am nañ ci lu wóor ne ñu ngi ko seqal yépp ci réew mi jox nañ sëriñ bi àqam nit nag boo ko joxee àqam mel ne di selu di selu doon xam nañ ne ñu bokk réew mi yëpp ñu doon bokk di jullit yëpp xam nañ ne xam gis nañ ñu mu sëriñ bi gis nañ itam xam ci digg ma boromam jox giñ ko jox àqam loolu yoolu xam ne am na ci lu wóor kon nag loolu noo ngi leen di sant leen ci gërëm bu baax a baax li ci soñ suñu bopp fas yéene ko gën a ànd ak yéen gën a sax ci liggéeyal lislaam liggéeyal lislaam nag mooy liggéeyal jullit yi rek loolu alhamdulilahi rabbil alamina Eh, sëriñ bi fàggul loolu lépp te lii dëgg-dëggeew turam muy al abdul xadim abdullahi wa xadimu li rasulihi moom jaamu boroom rek lay doon boo see digg mag yonent bi nag ak ndigal lim ci am surgab yonent bi rek lay doon ndax dàkk ci diggante boobu di jaamu boroomam di liggéeyal bi loolu alhamdulilahi rabbil alamin wan nañu yoon ay jaamu yàlla la te jaamu yàlla rek la ñu woon woon nu itam ci nañ ko war a liggéeyee ndax mooy rek ni mu liggéeyee yonent bi la ci suñu kéem kàttan xam ne duñ ko séen sax waaye nu def ci la ci suñu kéem kàttan ci liggéeyal kooku moom lëggéeyal ko ci lislaam lëggéeyal ko ci lislaam nag mooy lëggéeyal ko ci jullit bi kon nun suñu digganteeg suñu bokki jullit yi nga xam ne donc jullit yëpp lañ ko seqal waaye rawat na ci rek ñi nga xam ne ñoom lañ seqal réew mi bokk yàlla boole nu bokk boole nu lislaam boole nu réew mi am nañ lu wóor ne xam nañ te jox nañ ko ak xam seen kéem kàttan kon loolu ñoom lañ leen di fayee nii ñu delluwaat suñu tee sax dàkk ci jaamu yàlla ni ko suñu borom nammee ni nu ko sëriñ bi bëggale sax dàkk itam ci liggéeyal sëriñ bi ci lislaam mooy liggéeyal ko jullit yi loolu loolu loolu moom la wuyoo suñ bokki jullit yi rawat na suñ ba kilifa yi islaam yi yéen ko seq yéen seq liggéey bi liñ leen di wuyoo moo di fas sax dàkk ci jaamu yàlla ni ko suñ borom nam ci nun ni ko sëriñ bi bëgge ci nun sax dàkk itam ci liggéeyal sëriñ Tuubaa liggéeyal ku ci islaam moo di liggéeyal ko ci jullit ñi kon nañu xam ne ñun jox nañ leen ñaari loxo fas yéeneen liggéeyal sëriñ bi ci ñoom muy liggéeyal ko lislaam loolu ñun mooy suñu wartif mooy njukkal li nag li ñu war a delloo itam ñi nga xam ne seq seq nañ seq seq seq seq nañ lislaam bi seq nañ liggéey nu seq liggéey bi loolu la seen jukk la suñu jukkal ci ñoom moo di rek ñu gis ñu ñu xool taxawaay xool suñu diggante ñoom ñu gis fa du ñu fa gis lu dul jaamu yàlla ni ko su ni ko su ko suñu borom bi nammee ci ñun ni ko sëñ Tuubaa bëgg ci ñun sax yi itam nag ci liggéey sëñ Tuubaa ni mu doon liggéey la yonent bi nu digg nu nu sax dàgg ci digg liggéeyal ko ci wàll yépp rawatina ci suñu digganteeg jullit yi rawatina suñu digganteeg ñi nga xam ne ñooy suñu ñoom lañ bokkal barab bi muy réew mi ñu bokk lislaam bi bokk ak bokk kon ah, na ñëpp xam ne nun suñu taxawaay mooy sax dàkk ci jaamu yàlla sax dàkk ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ci lislaam ci jullit yi loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom laa jottali nañu góorgóorlu bu baax ci li ñu séq mu mu mu mu def suñu suñu yitte jëpp ci lislaam dëggu ci noonu ba lislaam déggul ci ñun ñu ànd te déggoo jàmm yi ñu bëgg ci àdduna bi wax ma laa ci réew mi foofu la loolu mooy junjub ji kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ñu kilifi lislaam yi bu mu góorgóorloo isaan gën a déggu ci ñun lu gën a ànd gën a déggoo di julit di julit dëgg di taalibe itam nag bu nu ko defee rek lii nga xam ne moo xam ci àdduna bépp muy ñëpp mas nañ bëgg jàmm te xamuñu fu ñu ko fu ñu ko fu ñu koy jëlee eh, noonu loolu bu nu ko defee jàmm am nañu ko bëggee loolu nag bu nu ko waxee ñëpp war ko gëm ndax bi ku xool bi lu muy jóg noonu bu doole bi mu dajee di gaare moom ay at na mu gën a tiise na mu gën a tare lépp mu daar daar daar daar loo ko mu lépp jëmbal teg teg teg teg boromam ci ko ci ci ci kanamam lépp mu def ko te yàlla tax liggéey liggéeyam bu rëy bu ba ba ba liggéey bi ak si fii tey xaddamul toxu dee turuut kon bu nu wootee jàmm ñu war ko gëm xaddamul li tax ñu wala fi xaw xaw ma sant ñu wax ko noonu waaye man mel ne xat lu yomb a damm la jëf wala damm kon liggéey sëriñ bi liggéeyam bu réy bii mu liggéey fa mu fekkoon yoonu lislaam moo ndig ma fii ñu toll xaddamul dee tuud ah, loolu bu wootee jàmm dañ ko gëm kon nag moom eh, eh, ngi tàllal suñu bokki jullit yépp rawatina suñu bokki jullit yi nga xam ne moom lañ moom moom la ñoom lañ dëkkal ñu ñuy suñuy bokk di suñu bokki jullit di suñu bokki dëggandoo ñoo ngi leen tàllal loxo bu baax a baax a baax jox nañu loxo waaye ñaari loxo nañ leen jox kon nañu góorgóorlu bu baax na diine dëggu ci ñun na lislaam dëggu ci ñun te nu góorgóorlu jéem a ànd te yàlla te déggoo buñ ko defe lu ñu namm lu ñu bëgg lu ñu bëgg rek mu am lu ñu bëgg rek mu na mu gën te dara te jàmm rek ay amee jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñépp jigéen ñi di bëggee ñépp ci diine lislaam kon kàddu yaa ngoog jërëjëf moo ngi sant bu baax a baax a baax sant bu baax a baax a baax a baax jëru dolli dara xam na lu bari lu ma war a loolu doy na ñoo ngi sant bu baax a bi ñaan ñëpp mi ngi bi ñaan